tëdd si di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nee na mu bëgg rek nuyale leen ak sangam su tëdd si sëriñ bi nee na njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi fi teew ak ñi fi teew ñëpp nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Bada Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall Mbawor di ca teg sëriñ Aliou Fall ibnu sëriñ Assane Fall Mbawor di ca teg sëriñ Gunda Fall ibnu sëriñ Fallu Fall Abdou Sakor di ca teg sëriñ Seydina Fall ibnu sëriñ Abdourahman Fall ibnu sëriñ Mortala Fall sëriñ Xaadim Fall ibnu sëriñ Seex Fall Mbawor sëriñ Xaadim Fall ibnu Seex Xaadim Fall sëriñ Mbàkke Njaay Baay Fall sëriñ Mortala kan ak sëriñ maam Thierno kan ñi nga bàyyi daaru kan ànd ak sëriñ làmp kan sëriñ euh, maam Thierno kan sëriñ làmp kan nag mu ngi bàyyi ko daaru kan ak ànd ak waa siin ak waa daaru kan gépp mel ni sëriñ alaaji mbay ak sëriñ Sam Diouf sëriñ ahmadou kan ibnu sëriñ xaadim kan sancub siin sëriñ abdul ahad loo ibnu sëriñ basiru loo ale aram loo sëriñ maam ceerno ngom seexu sëriñ seex ndigal seen sëriñ moodu fall ibnu sëriñ saliwu fall faatu sow sëriñ abdoulaye sekk borom baax cene ba sëriñ bi mu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di dalal ganam ñi di nga xëy ni bi mu jógee Touba nee na day jël lépp li mu àndal indaale ko ak lépp li mu ambaale waaye nag mu ànd ak njabootu maam Cheikh Rahima Fall di sangam yi nee na andi xiiwal yooyu yëpp ànd ak ñoom fas yéene ko wàcce fii kon sëriñ bi ñii mooy ñi nga xam ni doon na leen dalal muy sangam yi mu leen di sant di leen gërëm ci jataay bi nga xam ni fu mu jëm fépp fu mu teew wala fu mu jóg ñu ànd ko ak moom jàpp ko muy njabootu maam Cheikh Rahima Fall gi sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di leen jaajëfal kon asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah ba ci kanam. ne moo ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seenu sant. ne mu ngi leen di ziyaara. ne mu ngi leen di baalu di leen balaax. Ah, di jéggalu aussi ci guddee bi mu fi ñëw. ne mu ngi jéggalu bu baax ci guddee gi mu guddee ñëw. parce que tey dafa nekk bés bu xat. ne tey jii dafa nekk bés bu xat lool ci moom. muy d'abord tey sama première rencontre ak sama ujaaj yi. ne d'abord tey jii mooy première rencontre am ak mboolem ujaaj yi mu ba nga xamante ne da leen a bëgg a yóbbu Màkka. ci jàkkay njaxate lañ ko doon loolu mu ngi amee woon ca jàkkay njaxate gee mu dajeek ñoom. suma benn rakk di maye doomam. nee benn rakkamit di maye doomam. Euh, Idrissa Gueye. nee Idrissa Gueye. di sama xarit. nee di xaritam. suma rakk. nee di rakkam. lu mat fukki at. ak juróom lu mat fukki at ak juróom. gàmmoom man la koy tuddee. nee gàmmoom moom Idrissa Gueye moom mii la koy tuddee. sept la fa dem. ne sept heures la fa dem. cérémonie officielle bi mi ngi soog a jeex. ne cérémonie officielle baa ngay doog a jeex. man leen lu mu gaaw damay daw. ne mu ne lu mu gàtt gàtt rek danaa gaaw daw de. dinaa ñëw ci Pape Seck naa ko suy jeex may daw di ñëw. ni ko waxoon na ni Pape sekk dinaa ñëw bu cérémonie bay jeex lu ma jàpp naa ko bàyyi te ñëw. looloo tax ma guddee ñëw. ne loolu rekk a tax moom mii mu guddee ñëw de. su fekkoon. waxam jamiil xulafaa yi wa ahlu tariqati muriidiyya alhamdulillahi awalan wa axiran. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi bu baax a baax sëtub sëriñ tubaa bi fi jógee sànq doomi sëriñ Mortala mbakke doon seede si liggéey bu rafet bii ñi ngi koy siyaar di ñaanal sëriñ tubaa jàppal ko boppam téel ko boppam li mu bëgg liggéeyal maam ji suñu borom defal ko ko waaye di siyaar bu baaxit sëriñ Bada Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall Mbawar ibnu sëriñ Ali Mbawar ibnu maam Cheikh Ibrahima di siyaar bu baax a baax sëriñ Baye Ngounda Fall ak sëriñ Baye Jili ak sëriñ Sidina Fall mu sëriñ Daam Fall ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi ci jataay bi doon kilifa boo ko jigéen jigéen yi ak waa gar sëñ ba sekk yëpp rek sëriñ Badakan nee na mi ngi leen di nuyu te di leen di siyaar bu baax a baax bu mel ni waxtaan dafa mel dafa xat tam jataay bi lool ngi koy tënk ci ay kàddu yu gàtt rek waaye ñu siyaar bu baax it suñ mbokk sin laykan yi di sëriñ taala kan ñu bokk nekk daaru kan ñu ànd jóge ba daaru kan mu yo bëri yitte lool waaye wax dëgg yàlla daa bàyyi lépp rek ànd ak ñun ci liggéey bu rafet bi tey ñëw fii teewal fi waa daaru kan gépp ñu ànd ak sëriñ Sam Diouf ak soni sëñ Mbàkke tëgg ak wax dëgg yàlla maam Cerno kan ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla ñu bàyyi seen yitte ak jigéen ñee góor ñi siin lay kan ak daaru kan daal ci gàttal ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bàyyi na lépp luñ jàppoon daal ànd ak ñun tey ji nga xam ne oto lañ jël ñëw ci bis bii ñu leen koy nuyoole baax a baax di ñaan lii ñuy def lañuy def ñoom xam nañ ko ndax jëmmi sëriñ Modou Kane Sine Baye Fall moo tax ñuy def kon sëriñ Bara nee na mu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax sëriñ Pape Seck Baye Fall wax dëgg yàlla bis bi nga xam ni yalla dogal na mok sunu wajur di serigne mudou Kan sin baye fall dafa andalon doon ko def ba tay ji serigne Badakan awu ko ci di liggey di and ak mom di ko def ba tay ji yalla na gëna jëm kanam gëna yok ba fépp fu bis di ag mu ag fa nga xamni def na la war ndax nit lu mëccul rek du ko xam kon jotaay bi ñi fi nek yek serigne mudou Kan dañ ko macc motax ñu xam kon serigne pap sek li nga def sëriñ Bara nee na yàlla na sëriñ bi àggale ko ma fi ngeen bëgg àgg fépp ngeen àgg fa bu baax a baax a baax mu mel ni nag kon da jàmm lu ñuy puus tuuti rek xëy na xat na sax waaye dañ ci tàbbi tuuti rek mu di mën nañ koo tàmbalee sax ci jëfi sëriñ Assane Kane jii nga xam ni moom la indi tey jii na yoonu murit damay faral di wax ni maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu wër sëriñ Touba ba jaar lay Kane gisee ku ñu wax euh, sëriñ aadama Gueye ak sëriñ Makhtar Touré ba dem ba ci sëriñ Touba ci Mbàkke Kajoor jébbalu fa ñoom ñaar danoo waxtaane yoonu murit te nit ñi duñ ko bàyyi xel ndax Cheikh Rafal bi mu jaaree Sine kan def na fa mox ji saat ko jàll ndax Cheikh bi mu nekk ci ñaari armée yi di wër di sikkar gone yi da doon daw ñëw di ko seetaan di ko seetaan Cheikh Rafal naan doom dem leen jébbalu ji Cheikh Rafal laata muy jébbalu ci sëriñ Touba doon dégg la jébbalu moom moom junj maam Cheikh laa laata muy jébal ci Serigne Touba doon na digle jébul naan doom dam leen jébul am ci xale yi ko sant kan koo xam ni daa di dégg waxi Cheikh Fall daan ne man da jébulu naa bi mu ne man jébulu naa bi reer jotee mu dem jege baayam di xëñ wàlliw ndax mag ñi sant kan wàlliw da cee yomb baay bi daane ko moo diw jébul naa ji nga wax tax na ngay xëñ wàlliw la fekk kàddu Cheikh Fall googu moo ko def wàlliw Cheikh Fall gisagut Serigne Touba Seera Fall nee bi mu génn Sine lay kan di sikar ba yàgg am na fa ñetti fan am na ku ñuy wax Baye Balla Gaye ci magi Sine lay kan wax na ne moo tàngoon satal ndox di ko yëtlu Seera Fall Seera Fall di bàgg ba yàgg guddi goo xam ne la feeñu ko ci benn sant kan lañ wax na fi jug ko kii ngay wër day soo demee ba dëkk bu neex ba dër géy soo salaam na da nga ci am ay tegtal Seera Fall suñ mudu maram kan nee na Seera Fall daanaka wax naa ko ma dun kan Sine su ma del si waatun Sine lay kan day daa leen bàmmeel ba waaye day du gaaw naa ko waaye day du gaaw waaye daana ko wax naa ko su ma ñëwaatoon si léykante daa leen waa bàmmeel ma woon sëñ bàmba nda Seex Rafal daana wax naan njagure yi lañ ma wone pincum yàlla waaye siin léykante lañ ma wone sëñ bàmba Seex Rafal wax loolu daana wax naan njagure lañ ma wone pincum yàlla waaye siin léykante lañ ma wone sëñ bàmba Seex Rafal bi bi lëf la génnee wax ak moom daane ko boo demee dëkk bi def Badar Géey suuf salaam da nga ca muy tegtal Seex Rafal nee na bi mu doxee tuuti lan ko wan ñetti jëmm nee na danoo njëkk indi jëmm ju ñuy wax alaaj ma ko du jaxate ca àddulaay nee na moom lañ ko njëkk a wan ci kaw jamono ji Cheikh Rafal dañuy daa génn si leekan rek ñu yëkkati ko ba ci juróom-ñaari asamaan wan ko ko ñox alaaji ma koddu na góor yàlla piir la Cheikh bi nga ko xoolee xoolaat dañu aadoom ki war du kii nee na ñu wàcce kooku indiwaat ku ñuy wax sëriñ morloo min tabaxal waaye ko may wër dégg daa ñu xam ne mooy Cheikhouna Ahmadou Bamba Cheikh war a ngi nii ñu wàccewaat ko mu ñu ne ko foofu nga li mu doon leeral histoire la sax waaye dama ko dog waaye li mënul bëgg a leer nga xam tey taalibu bu nekk ci nga war a taxaw nga xam ne tey mooy jëfi sëriñ Asan ji moo di jëmi maam Seera Faal bi muy jébbalu ci sëriñ Tuubaa bon xaatamante ba ku nekk wax sa morom la nga koy wax Seera Faal dañu sëñ Bamba man day sama pas-pas ak sama yéene àgg na may wër muy Seexuna Ahmadu su ma ko gisut su ma gisee bàmmeelam sama pastif ak sama yéene sama ngëm dana ma may li ma doon liggéey ma liggéey ko ci bàmmeelam boobu ba la ma bëggoon sëriñ Tuubaa ni ko yow de maa yow ñoo bokk ne man yonent bi nga xam ne moom lay liggéeyal day donte gisuma ko waaye leer na ma ne asamaan si kat ma daa tiim moo koy tiim suuf si may doxee ci la laa dox sama pas sama yéene may ma liggéeyal ko am ma ko ci moom kon nga gis ne kon innamal ahmaalu moo am gis nga ab sëriñ donc bëgg wekk ko ko liggéeyal te gëm ko mooy jëfi sëriñ Assane ji sëriñ boobu man di jébbalu ci àdduna lu mu bari bëri baatin lu mu bari bari wilaaya te liggéeyaloo ko mënoo jëriñ ci moom rawatina joxe gi nga xam ni sërif na ko def Serigne Touba moo wax ci boppam daan ni ca barab boobu ku ñuy wax Serigne ma Serigne ma xaali jaxate Serigne Touba nee ca lu nga xamal ni ko mboolem jàmm yàlla yëpp suñ suñ joxe cëpp doole Serigne Touba moo wax loolu. neen ku dox suñ ma xujja maram waliyu kamaal la Serigne Touba neen ci bàmmeelam la ko suñu borom waxal ni ko Ahmadou Bamba de da nga xam bis mi ko tey mboolem jàmm yàlla joxe cëpp doole. te joxe gii nii sëriñ Touba Cheikh Rafal da cee def intervenir bu doy waar Cheikh Rafal Serigne na fu mu toll ci géej gi foo xam ni génn addiya la daa teg bër muy la ko waral moo di ñaari tubaab yi nga xam ñoo séqu réew mi ñu koy wax Carpo ak Eleñ ñaari tubaab yooyu Cheikh Fall dafa amoon na connaissance kenn ki ni wax Carpo sax tiital na Cheikh Ibrahima Fall doom waaye Cheikh Fall am bis mu daal di def xutba bu am solo daan ayyuhal jamihal muridina wal muridaati fillah bi wallah baabi al mutahallihin billahi bi hurmati di islami xat talabtu Cheikh Fall daan ni day yéen murid yi jigéen ñi day man maam Cheikh Fall maa ngi di woo gi ma leen woowee ne mooy ab sabal boo xam ne mooy leen iqraaju sayxinaa génne sama sëriñ bi ci gi day indi ko fii ci géej gi daay nag na ngeen xam lépp lu yàlla sàkk di ngeen asamaanu suuf ni nga xam ne bis mi ngi tey yàlla jox na ko Serigne Touba daani ko nangu ak ko bañ daani kon doom jox leen seen àll yi ma jox ko sëñ Bamba addiye Serigne Fall daal di wax loolu jox leen seen àll yi ma jox ko sëñ Bamba addiye daay doom addiye ji leen di laajjey addiye du haat yi li rabbiha dee leen joxe addiye day ne addiye kat ko koy joxe dana jubbanti sa diggam ak sa borom daag ci te daan doom addiye ji mi leen di laajjey addiyetu addiyetu machiyetul gis mi dee leen joxe addiye ndax képp ku bëgg a nga bëggub taar addiye day rafetal soo yaram waaye doom addiye ji mi lañ daaje addiye to wala tàmbirul moom xoosa di lañ joxe addiye ndax addiye kat sax day day yombal ab dund ndew mi ñàkk dépasse seerafaa ne boo bëri la joxe addiye dépasse da lay yomb kon day demaat ci alxuraan lan tanaaloo bira xataa tanfiqu maa tuhibbuuna bala gën a bëgg da ngeen jël li ngeen gën a bëgg di ko joxewaat arab yi ne almaanu saxiixu ruuxu lañ wax dañu alal dafa sax ci ruux kiy joxe mi ngi mel ni kii daggu ci yaramam di ko jox arab yi loolu lañ wax nee na kiy joxe mi ngi mel ko joxe moo tax suñu seeni doom ak seeni alal ndax xam ne ne ñaar kat dafa sax ci doomu aadama moo tax suñu jox daa wax naan addi ji mu leen di laaj day na ngeen xam ne bëgg seen xel di nekk fi man te ab sëriñu bu sa xel du génn ci moom rek da nga jariñ ci moom moo tax alal ji ma leen koy laaj kon lii sëriñ Assane def danoo bokk doon bàyyi doon benn waaye mu wëlbatiku nag doon sunu jaam jaamaat loolu lay dund suñu diggante moom mu doon koo xam ne gone la waaye la dama leen faral wax naa leen arab yi wax naa ana ana lay suuba képp ku naan mën a mën a du ma mukk waaye jëmmi sëñ Modou Kane Sine Baye Fall li ma jur taxul waaye ko Seere Fall daggee ci boppam la wàcc ci àdduna ndax fi ne jëmmi sëriñ Touba ji mooy jëmmi yàlla ji waaye jëmmi jëmmi jëmmi sëñ Touba ji mooy jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Modou ma sëñ Modou Kane Sine Baye Fall sëñ Modou Maram Kane nekk woon ku war a am doom ci àdduna déedéet ndax fi ne boo gisee ci soir fi ne sëñ na juróom-ñett fukk teg ci suñ jamono ji kum ci doon mara de yéen yàlla jéggal ma ci kàddu gi booba lu ñu tuddee tële daan la daal waaye bi mu am suñ mudu kan seen Baye Fall na juróom ak lu topp yaayam muy soxla Yaasin Puy la waaye nag Seera Fall moo am doole ci suñ borom xam ne am ko ci ngóorug yàlla gi lu mu bëgg mu am mu am Seera Fall daana wax naan ku ñu wax sëñ Mor tomb del mujjisaat jooju moo am te ku ne xam na ni Sëriñ Tuubaa dañu xaalal xaddimu nafaxanallah bi barakatihi ala wala du wala day bi yurusu aala waaye wardu suuy bi nag yurusu maa la Sëriñ Tuubaa wax dañu ñaari doom ñoo am dañ wala du xel bi doomi xol yurusu al nee na mooy doon aal muy wilaay baatin waaye nag wala du bi yor doomi ndigg nag mu yurusu maa la mooy alal kon jëmmi Sëriñ Mudu Kan Sëriñ Baay Cheikh Ibrahima Fall ci doomi xol kon ginnaaw jotaay bi yàgg na dañuy wàcc suñu kàddu tuub bu baax a baax a baax waaye dal sëriñ Bada daal am na lu mu yónni woon ci taalibe yi ñu takkaat laxasaay yi mbàkke bàll ñu leen siyaar ñu takkaat ndigg yi takkaat laxasaay yi am pëstéef am yéene ju rafet amuk bëgg amuk jëf te di ko def ndax yoonu sëriñ Tuubaa wi ndax yoonu Serigne Touba wii yoonu jëf la du yoonu xool du yoonu wax wax mu yàgg-yàgg du taxawal dara waaye jëf moom lu mu néew néew néew sottal dara ku ne xam na ne ab tabax foo ko fekke danoo woo ay maçon ñu móol ñu ba rëdd gas tàmbalee jëf tabax ba sot ba nit mën caa dëkk waaye waxi kese rek boo doon wax fii ba ilaa yu mi diine dara du taxaw kon yoonu sëñ Bàmb yi du yoonu wax yoonu jëf la jëf fii maye dara kon sëriñ Bara neen mi ngi leen di yëg yéen taalibe yi koor gii ngeen ci gën a bàyyi xel di ko gën a fonk bu baax a baax a baax a baax sëñ bi da ngay seetlu lenn bëri na ñoo xam tey sëriñ bi day bind lettre addiya tey boo demoon ci seen i gaal mën nga faa tijji tey mbub moo xam ne jeesi neer lay doon boo xam ne gën gaa mooy mën naa koo jënd mën na koo jënd 60 000 téléphone ba muy ba muy yor la ca gën a néew 60 000 lay jar wala 150 000 sëñ bi ko ndokoy seerafaal yi nga xam ne seerafaal sëñ tuwaa ko joxoon moom ci ndigal nga nepp taalibe nga sëñ bi nga gëm sëñ bi nga yaakaar suñu waxee nga jooy xaacu daanu te sëñ bi jërul laa génn 10 000 francs sax jox ko ci jox ko ci ndogo yi damay wax naan fi mu toll nii sëriñ si fi mu toll nii taalib yi bëri bëri gëm nañ sëñ bi waaye bi ñu toll jamono bi ñu toll taalib yi bëree bëri de gëm nañ sëriñ si waaye leen seen bopp moo leen gënal sëriñ bi ndax lu dox sa diggante ma yàlla loole moo remplacé yàlla ci yow lu dox sa diggam ak yàlla suñu borom loolu moo dox sa diggante moo remplacé yàlla ci yow kon na leen bàyyi suñu caaxaan yi te góorgóoruwaat xam ne mag ña fi nekkoon dan daa jël seen bopp di ko mirax di ko yóbbul sëriñ sëriñ jamono jii nag ab loolu ñu tuddee jaay taar ak téléphone yi rafet ak mbubb yi rafet fàtte sëriñ bi ba léegi bu na duggee ci biir bàmmeel da nga ko rëccu Cheikh Ibrahima kat lu ko nit gëm-gëm ak lu ko nit bëgg bëgg bëgg te liggéey ko du ëllëg yu sequto yow dara sëriñ Tuubaa bi mi jëf fi nekk Cheikh Rafal tey bu fekkoon toog fay xool wala mu defut dara tey lii xew xewut nekkoon jaayante di mboolem ku nekk ci kër Sëriñ Tuubaa gétt doon fa màgget da nga faa nekkoon ni liggéey di xidma ne leen bàyyi suñu caaxaan yi la fi nekkoon ba tey moo fi nekk waaye wóor na Sëriñ Tuubaa fi ne caaxaan doy na waar trop taalibe yi ñu bëree bëree bëri ci nelaw lañ nekk te yëwoogul ne leen jëf delloowaat bàyyi addu ji ñu topp di nangi nangi àdduna lu ko topp topp moom dañuy wor daaru xaraak daaru xuróor rek la kër gu war a kër goo xam ne kër gu sax la daaru xuróor la kër guy kër guy ware daaru xaraa ëllëg rek mooy kër sax kon na leen xam ne sëriñ bi sëñ Badakan mi damay wax naa ne képp ku jébbalu ci moom sëñ Badakan wàcc na yaa wàccut sëriñ Badakan mii képp ku jébbalu ci moom barke sëriñ Tuubaa wàcc na yow yaa wàccut dama dama ko sëñ Bada xanaa mënoo ba xanaa ma dimbali nga bàyyi kees maam toog fan bañ faa jaar sax waaye ci suba ga la woo ne ma maa ngi kees ma ko ah la suñ mënu gën ci def kenn mënu ci dara xam naa ni bëgg naa nga yar leen waaye doy na war barke sëñ Tuubaa laa ko waxe man du ma tricher man fi mu toll nii nekk naa nit koo xam ni ah Fallou waaw damay bañ waaye wër na sëriñ Tuubaa liggéey dafa jot na leen góorgóor bu baax a baax a baax ci ndogoy Serigne Touba yi ndogoy maam Cheikh Ibrahima Fall yi na leen ci góorgóor lu am solo la sëñ bi 30 000 francs atum yàlla mënoo cee joxe dara loolu loolu dañ ko bàyyi war dañ ko bàyyi bu baax te ku ci bëgg ab téléphone jënd ko ku ci am as ndaw sax bu la la ñu tuddee a naturel la a lan nga jëm ko ko jox ma jënd ko barke sëñ Touba jigéen ñi leen jàmm waaye jàmmatu sëriñ si jigéen ñi leen jàmm waaye jàmmatu sëriñ si barke Serafal barke sëñ Touba taalibe yu bëree bëri dañuy font waaye war ngeen na xam ne jalum mag gone mënu koo tasaare li xew war a xew ci kër sëriñ si mag ña liggéey ko ba tëdd loolu day jëm kër waaye du wàññi ko mukk ku tarde yaa tarde rek oto bu dem moom demul ma nga taxaw ca garage ba oto yooy dem nag ngay dem nag loolu nga ci am yoonu sëriñ Tuubaa yi tànk mu ndaw bu mag a ci am mu ndaw lu tuut tuut di dem tànk mu mag te rëyit moom moo ko tane kon ñu ngi jégalu bu baax a a baax nee la bëgg a sant sëriñ yi di sangam yi nee na mi ngi nuyu bu baax sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Abdou Fata moom sëriñ Murtada Fàllilu di ko siyaar bu baax nee na di ko wax Mbàkke Balla nee na moom day daa doon Baay Faal na ndax bi mu ñëwee nee na wàccuwaay wee ci kaw nee na kenn gënu ko cee yey waaye nee na bi mu ñëwee de ci suuf la toog nee na dund goo xay sëriñ baa ngi koy dund maam Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu rek moo ko waral kon sëriñ bi nee na mi ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax nee na di nuyu sëriñ Bada Fall mii nee na di turandoom di sëriñam di xaritam nee na di ko beral nuyoo bu baax a baax nee na di ca teg sëriñ Baye Ngunda Fall ak sëriñ Seydina Fall nee di sëtub sëriñ Fallu waajuram sëriñ Abdourahman Fall ñu gën koo xam ci Baye Ndaam Fall nee soxna Mbeen mu sëriñ Fallu mooy waajuram nee na feggoo ak sëriñ Xaadim Fall ak sëriñ Abdoulahi mu sëriñ Abdou Jawrin ak sëriñ Abdoul Xadim moom sëriñ Cheikh Xadim Fall ak Serigne Abdul Fatah Diop neena ak Serigne Abdou Khadir Lo Cheikh Abdul Ahad Lo mum serigne Basir Lo ale aram Serigne bi neena mi ngi len di siyaar bu baax neena di len beral am nuyo neena di sante bu baax a baax nee mbokki bopam yi Serigne mortala kan mum Serigne madun Maram mum Serigne Mor Fanga mum Serigne mustafa kan ak sëriñ maam Thierno Kane ak nee na mboolem ñi nga xamante ne ñoo bàyyi ko siin lay kan ci dëkk bu barkeel bu sëriñ Modou kan siin bee nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax nee na di sant waa Thiès gépp nee na ci njiital sëriñ Pape Seck Baye Fall nee na di sant waajuram wee toog di soxna Dior Thiaw nee na di waajuru sëriñ Lamp kan nee na waajuram moom ñëwul ma nga Touba muy soxna faatu Fall nee mi ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér nee na ak mboolem waa kër gi ak njabootuk sëriñ Modou Kane Sine gépp nee na mi ngi siyaar ak di mboolem waa xayre yim àndal yépp nee na di ci jiital sëriñ Mor Ndooy nee na mu xam ni xaritam la léppam la nee sëriñ Aliou Fall moom Serif Assane Fall nee na Serigne Aliou léegi la fi bàyyi ko nee dafa dem ay itte yu mu dem Mbuur waaye nee na léegi nga gisaat ko fii nee na Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Soda Fall nee na mi ngi koy beral nuyoo bu baax a baax nee na ak mboolem ñi mu àndal bàyyi ko Touba ca dëkk bu tedd bee nee na dikkaat rek ci waxi Serigne Lamp Kan nee na mooy ak taalibe nee na bàyyiwuñ fi lu ne nee na bàyyiwuñ ko fi ludul ludul ak taalibe nee na Serigne Modou Kane Sine nee na képp ku xam sëriñ Modou Kane Sine nee na nga xam ne deseelul maam Cheikh Ibrahima Fall dara nee na képp koo xay ne da nga koo yaakaar nee waroo koo deseel dara nee na waaye li sëriñ làmp kan wax léegi ci koor gi. nee na bind la bu yees peq. sëriñ bi nee na kon war nañ cee góor góorgóorlu bu baax a baax. nee na waaye su ndogu yi jotee. nee na ñu bind ay leetari ndogu. nee na yónnee la ko. nee na fas yéene woo. def ca. nee na ludul. ay waxi kese rek. nee na jot naa leetar bi rek nee na waaye waxi kese dong ngay def ca leetar ba nee na naxoo sëriñ bi nee na sa bopp rek ngay nax nee na yoon wi yoonu jëf la nee na day joxe benn misaal ci taalibib sëriñ làmp mi nee na am na ku mu jox ab leetar fële ca dakaar nee bi mu ko joxee leetar bi nee na bi mu xoolee addiye ji. nee na mu xam ne lii kat yoru ko. waaye yor na téléphone boo xay ni su ko jaayee. nee na dana mën a joxe addiye ji ñu koy laaj. nee na mu jaay téléphone boobee. dal di joxe addiye jooji. nee na ci saase. mu tayeeg benn mbokku taalibeem. mu ni ko yow de léegi rek woo la jotuma la. mu ni ko yow de léegi rek woo naa la jotuma la. mu ni ko sama téléphone dey léegi laa ko jaay def ko ci sama addiyee leetarum ndogu bii mu ni ko nan dem sama kër nee na jox ko téléphone boo xay ni moo gën ba mu yoroon nee na kon loolu nee na ak dëggoom akuk jaayanteem nee na moo tax de nee na sunu borom faye ko loolee nee na faw nga joxe li nga gën a bëgg nee na doog am li nga bëgg nee na kon ab Baye Fall noonu lay doxe nee na Baye Fall warut a denc dara nee na rawatina ñu nekk ci weeru koor nee na ni ko Serigne Bada mii di waxe nee na nga jaaxaan ci sa ker nee na de fu mango bu baax nekk nga dagg ko nee na te jëmoo ca ndogu ya nee na joxewoo ca aw ñaq nee na ab Baye Fall nee na na nga xam ni yaa jàpp sëriñ bi waaye sëriñ bi jàpp la nee na waaye day wax moom sëriñ Aliou kan mi nee na képp ku sëriñ Modou Kane Sine doyatul nee na na ñëw fii ni doyatuma nga dem ak sa bopp nee na waaye moom de fa yéene na nee yoon wi ñu bëgg doxe nee na képp koo xay di joxati ne leetar addiyey ndogu. nee na te jaayante woo ko ba mu mat. nee na na ko leer ni yaa ko jàpp. waaye moom sëriñ Bada mii jàpp la. nee na ñëpp nañu ko dégg. nee na ndax maam Cheikh Ibrahima Fall. deseelul sëriñ Touba dara. nee na kon bu nu goree. nee na waruñu koo deseel dara. nee na ndogoom yi. nee na ndigal la ci amoon. nee na kon sëriñ bi nee na kon jëfe ko saa su ne nee na moo nu war de nee na bu jotatee nee na képp ku mën a bàyyi sa yitte ñëw ànd ak moom ca ndogu ya ba liggéey ba jeex ñu ñaanal la nee na moo gën fuuf lii nga toog fii di ko am di ko dàq muy àdduna nee na te àdduna fii nga koy bàyyi nee na fee loo fa jëful doo ko fa fekk de nee na te moom yaakaaruñu fa kudul Cheikh Ibra Fall. nee foo tuddee Serigne Touba teg ca maam Cheikh Ibrahima Fall. nee na ay rakk mayu ko ko de. ab njàng mayu ko ko de. nee na ñaqal Serigne Touba rek a ko ko may. nee na kon buñ ko fi bàyyee ñun ak i njabootam. nee na foofee rek lañ war a nekk. nee na kon ñu ngi leen koy dénkaat. jublu nee ñi ngi jublu ci tabaski ak magali yi kep ko xayni jox nañ la ab leetar te fas yéene woo jëfee ndigalul sëriñ boobee. nee na te fas yéene woo jëfee ndigalul sëriñ boobee. nee na di nga xamni la nga doon wax. serigne bi nee ñi ngi siyaar serigne Saliou Mbakke. mom serigne Fall mom Cheikh murtada Mbakke. nee mi ngi lay siyaar bu baax Mbakke Ball. nee na sëriñ bi nee na kon dañuy bañ a guddal. nee na mi ngi dénk taalibe yëpp. nee na fas yéenee sax ci ak taalibe. nee na di jëfe ndigal yi. nee na lu dul ndigal du jariñ de. sëriñ bi nee na nañ ci góorlu bu baax a baax. nee na li ñu leen di laaj. nee na waxtu wu jotee. nee na dañ koy wàññi ba mat. ànd ak yéen. nee na jébbale ko fa ñu yaakaar. nee na la sunu njariñ nekk tey jii ak ëllëg nee na sëriñ bi nee na kon naxuñu kenn nee na lépp loo xay ne da ngeen ko koo jox nee na bu fekkoon da koy tabaxee nee na këram da ngeen koy gis mu doon ay étage waaye nee na loolu bàyyeewuñu ko ko fii nee na ndax sëriñ Modou Kane Sine jàmbaar ja nee na kenn ku ne nee diggam ak maam Cheikh Ibrahima Fall. nee na lépp lu mu mas a am. nee na jaayante na ko ak maam Cheikh Ibrahima Fall. nee na andi nañu ci kër gi ay fas. nee na ak lu mu mën di doon. nee na mu jébbal ko waajuru kii toog di Serigne Cheikh Fall Mbawar. nee na loolu rek ko mën a jariñ nee na te moom Serigne Modou kën siin am na lu ko sunu borom may. nee na a na caayam. waaye nee na liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall. nee na da ko gënal lépp. ne sëriñ bi nee na kon mi ngi ñaan ci sunu borom nee na képp koo xëy ni ñëw nga fi nee na borom faj sa yaajo saahiran wa baatinan nee na ci daraje yi sëti sëriñ Touba yi ak sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi toog nee na nañ jàpp ni lii nee na lu sunu borom nangu la nee na jëmmi Cheikh Momadou Mourtada léegi la fi jóge nee na sëti Cheikh Ibrahima Fall yi nekk nii. taalibe yi nekk nii. nee kon lii lu sëriñ bi nangu la. nee na mbooloo mi waroon naa ëpp lii. waaye nee na dafa am liggéey bu sëriñ Muntaxa Mbàkke. nee jox ko sëriñ Cheikh Jëmb Fall. nee na muy ñaanal sëriñ Muntaxa ak sëriñ Cheikh Jëmb faal ñu yàgg fi te wér. nee na liggéey boobee ñu war koo tàmbali suba. nee na muy sekkar ci canal yi ca biir Touba. nee na canal yooyee. nee na moom la sëriñ bi joxe ndigal. nee na ngir Baay Faal yi war caa xëy suba ak jàmm. nee na buñ jógee fii insha allahu rabbi. nee na ña nga jëm ca waar wa. nee na maam Cheikh Ibrahima Fall gii. sëriñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax. Sering bi nee mi ngi yamale fofu kaddu gi nee di jox serigne ali Fall nee mu sanni ci ay kaddu rek jox serigne bi mu ñaan ne serigne babakar Sonko serigne bi nee mi ngi tuub bu baax di le siar nee di ñaanal serigne mohammed jeng foofee mu nek nee mi ngi joko ak mom fu mu toll sëriñ bi nee na mi ngi siyaar ñëpp tey am yéene ci bis bii bu baax a baax nee na mu jox sëriñ Aliou rek mu ñaan. mi ngi sant yàlla tey julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Touba sëriñ Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko di ko ñaanal sëriñ Cheikh Jëmm Fall sëriñ Cheikh Fall ak mboolem xalifa yi waa kër sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem jullit ñëpp ñi nuyu ñëpp te di ci jiital suñu sangu yu tedd yi nga xam ne ñooy njabootuk sëriñ gi te seen mag wala seen waajur jóge fi léegi di sëñ Ousseynou Mbacké ñu ngi leen di siyaar bu baax te di leen di leen bal tey ñaan bur yàlla boole ñu jéggal ñun ñëpp di siyaar suñ bokki bopp yi muy njabootu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi fi teew ñu ngi leen di siyaar bu baax te di leen balwaax te di leen bal di ñaan suñ borom bo ñu jéggal ñi ngi siyaare wa kër suñ Modou kan sin bay Fall ñep bu baaxa baax di leen jëfël ci taxaway bu rafet bi nga xamne am nañ ko di leen bal wax bu baax te di leen bal di ñaan bur yalla bo ñu jéggal ñi ngi siyaar mboolem koo xamante mi ngi ci bi euh kaddu ya xamna ne du guddu kaddu yi cant la ak jaarati rek li sëñ eh, jamono dafai toll foo xamante teni bi yaakaar naa ni war nañuy fàttaliku njàngatu mag ñi euh, maam yi sang bu tedd bii nekk sama ginnaaw muy sëñ Jili Mbàkke sëñ Fàllu Mbàkke dafa waxoon ni aka yëpp genn aka rekk ci baax muy aka amuk taalibe daani geneen aka gum ci man di doon fi nga koy bàyyi aka bari alal fi nga koy bàyyi aka bari njaboot fi nga koy bàyyi aka bari soxna fi nga koy bàyyi waaye nee na genn aka rek mooy dimbalit nit ci biir bàmmeel muy aka amuk taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon ni bari taalibe bu ne bari taalibe de defe naa taalibe yi génn nañ sëriñ see tax muy wax mu ne bari taalibe xam ma dina jariñ nitam déet waaye amuk taalibe dina jariñ nit ba ci biir bàmmeel sëñ Fallou Mbacke mu baax ma waxaat ni ñett ñett ma ci doy ab sëriñ kenn rek a ma ci doy muy sëñ Touba daan ni muñit kenn rek a ma ko dàq muy suuf ku suuf maa dàq muñ waaye ak taalibe ci Cheikh Ibra laa koy roy waaye pëndam ba sax séenaguma ko kon mu mel ni ak taalibe doo nga am solo mooy tax a am texek àdduna ak texek àllaaxira te defe naa soxna may Maymunatu Mbàkke bi mu jàngee ba ñëw ci ku tedd gi bind kaamil dane ko demal kër soxna Faat Ja mu jàngal la liggéeyub jigéen akub taalibe daan ko ëllëg yow mal xiyaam lu fa waay manqué mën nañ la ko mottali ba mu desub taalibe tey it maam Cheikh Ibrahima Fall bi muy nelaw defe naa talaata ji mu nelawee talaata ji ko jiitu sëñ Modou Mbend da koy dawalal boobu ñu ngi gas raay bi biñ ñëwee ba defe naa foofu lañ tollool mu wàcc sëñ Modou Mbenn di ko dawalal bi mu ñëwee dafa wàcc tibb juróom-ñaari peer sànni àpp peel ñu jox ko mu tibb juróom-ñaari peer sànni daal di téen daal ne ah, seen pënd bi fa muy fanaanee ko sori ko xamoon ka muy fanaane bu guddee day gasub pax ci wet gi bu guddee mu yóbbaale pëndam daal ne liggéeyub sëñ Bàmba bi ku ci yónni sa doom bu ñëwee di sa baay ku ci yónni sa soxna bu ñëwee di sa jëkkër ku ci yónni sab jaam bu ñëwee di sa sang daan ne ana yoonu tubaab yi ñu ko yoon mu ni leen bàyyi leen ko léegi ma mat góor waaye yow bis boobu ñuy wax naan yow ma yafaru maru wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imriin yow ma sin sax noonu yox ni bu bis boobaa rek ngeen xam ne may góor daan ne bis ba nga xam ne nday day daw doom doom di ko daw bàyyi di daw doom doom di ko daw soxna di daw borom këram borom këram di ko daw mbooleem ku waaye xamoon ci àdduna di ko daw ko nga gënoon yaakaar boo demee ci moom ni ko dimbali ma mun la tëlu ma la sama bopp laatal Cheikh Ibra naan ni bu bis boobaa boo leen nee ma yow a ma ni leen man a kaay leen ñu ànd tàbbi àjjana waaye talaata ji mu ko waxee bi talaata ji delsee ci la nelaw te Cheikh Ibra li coow li bari bari badafal xéwal yim ci am ak mboolem njabootuk Cheikh Ibra yeeg taalibe yeeg soppe yeeg ñëpp Sidi Birahim juróom-ñaar fukki dërëm lañ donn ci moom maam Cheikh Ibra da daan def bu ñu xëyee suba addiyee juñ fi indi bu ngoon loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi bu neexoon bi doo dellu sa kër waajur ba fay am dara ndax ba nga waxee loolu bu neexoon sëñ bi na danaan la toogal fii dootoo dem fenn kon bu neexoon sëñ bi doo dellu sa këri waajur ba fay am dara kon nag bu la sëñ bi mayee nga dellu sa këri waajur loo am sëñ bee ko am loo ñàkk sëñ bee ko ñàkk damay wax naan ki ñu war a takku teg war la doxale ay yitte buñ la tëkkatutug teg buñ la àbbeeg teg baat waru kenn waru leen a dégg ki ñu war a takku teer war la doxale ay yitte maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu ci sëñ Touba ci Mbàkke Kajoor da ko yóbbu xur wuñ naan xuru xat nee nañ def na fa weer ak fukki fan nee na ñëw ci kër gi wut si lum lekk sax dawu ko def maam Cheikh Anta moo daan wut dara ñëw ba ci yoon woo xam ne dañ dina yaakaar ne Cheikh Ibra dina fa jaar mu teg ko fa bu fa Cheikh Ibra rombee gis ko muy xéewal danaan ah lii di Cheikh sama waaje xéewlu ci bis bi ko sëñ Touba yónnee woolu ko mu def weer ak fukki fan kaalaam la jël takk ko ci baat bi ñëw jox ko sëñ ne ko lew naa la doom da ko jox sëñ bi ne ko Ibra Fall loo ci jublu mu ne ko mbàkke lew naa la doom mu ne xari tabaski yi lewe seen borom bu la neexee rayal bu la neexee jaayal bu la neexee sarxeel bu la neexee mayal loo def ci man moo ma gënul loo def ci man bis bi sëñ Touba ñëwee Touba fii maam Cheikh Ibrahima Fall tëdd la njëkk a gis ci Touba ñu fàkk ko sëñ Touba julli fa daan ni Ibra Fall rafaate la naa la ko Cheikh Ibrahima dagg bant boobu jëmbat ko fa daan bu ëllëgee damaa bëgg bu ma fi jógee ñu def ma fii dégg naa ci sëñ Cheikh mu ne dafaa bay dugub nee na ba dugub ju ñor mu góob ko bojju ko def ko fam ko wara def ñew jox ko señ bi señ bi tek ci loxom bu tedd ba diko ray ba ci yag mu ne ko Ibra Fall sa mbay mi nanguna ndax yalla suñ borom xamal na ne ma bala sa taxaw lu toll nii ci ruu dinañ fi tedd Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra ya yaa jara raw Cheikh Ibra ja ya te yow rek ya ki tax no xew Cheikh Ibra Fall mo ñu ko woon ndala bew ba lo wa so ubi Sikra Fall yaa ka jara naw Sikra jaayante bare dafa yegg ndax mu xew moom Sikra Fall bu dugul woon duñ ko la bew ba jaabaloo ak waa sow bi Sikra Fall yaay ñag bi ñag Cheikh Bamba ñag murid yëpp Fall Cheikh Ibrahima waajur a ñag yàqu Fall yaa moomu yi Sikra Fall xal nga yomb leerale